بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مبولم بوك يب دي لن زيار مملني mel ne ñaari fan yi ñu ngi déglu xew-xew yi ci ay gone sufiyanke yoo xam ne ñu nga gis aw nit jóg taxaw temm ni dañ koy jéem a taaral mu mbokk yi xanaa xamuñu ni ak mbon moom kenn mënta fexe ba mu taaru maanaam lu bon mënta doon lu baax lu baax rek ay doon lu baax waaye lu bon mënta doon lu baax loolu dañ ko war a xam fépp foo gis mbaax am na contraire am contraire am mooy lu bon sun borom tabaraka wa taala bim yu teey yi daf ñoo soññi ñu necca bim bindee yi nga xam ni nag teeyul yi nga xam ni yu bon la ñaaw téef yeeg ye niroog yooya daf ñoo soññ ñu moytu borom bi tabaraka wa daf ñoo sant ñu di ko jaamu di dund ci ak teey di lekk lu dagan di jëfandikoo ci lu dagan su dee looy lekk la muy dugg ci sa biir bii di xeetu meññant yeeg naan yeeg yu mën a doon am na ca yu dagan yoo xam ni ca la la yàlla orienté bu fekkente ne looy lekk la ci meññant yi wala looy naan ci xeetu naan yi am na ca yu xaraam yooyee yàlla dañ la bu ko laal masalan ku xam na ni saa yàlla moo bind mbooleem xayawaan ak njanaaw yi waaye bàyyi ma wii di nag nag ku xam na ni yàlla da ko daganal su fekkente charte ya war a daje daja na ci ñu war koo jël jëfandikoo ko ñu daal koy jël jëfandikoo ko defar ko ba mu baax boo ca bëggee boo lekkee dara du la ca tekk ci bàkkaar ndax lu teey la lu dagan la waaye ku ne xam na ni bàyyi ma bii di mbaam xuux yàlla da ko xaramal même bu fekkoonte ni ki koy rendi da ko tëral daan ni bismillah allahu akbar daal di koy rendi du tax mu dagan ndax yàlla moo xaraamal yàpp wi kon daganul ci julit mu fekk mbaam xuux muñ togg ba mu ñor ma di ko lekk ndaka noonu tey boo fekkoon nit ki teg kaasu meew mu leer la ni lii lu la di meew moo xam ne meewum gëléem la mbaa meewum nag mbaa meewum bëy sañ nga koo naan waaye ku ne xam na ni meewum mbaam xuux sañee su naan aleykum salaam wa ndaka noonu ku ne xam na ni kaasub sàngara sañee su naan lu tax dafa xaraam mboole mbir yi nag noonu la deme su ko defee ñi nga xam ni dañuy layal ay caaxaan maanaam fekk nit mu nekk ci ak giraawaal yi di def ay njaaxumam ba yàlla weer ko aw nit jóge fële ni ñoom dañ koy layal nag naan daa tàbbi ci nattoog yàllaa ko nattoog yooyu yan yi ay caaxaan la il faut ñu bàyyi xel ne dafa am ñaari mbir yoo xam ni kenn waru koo jaawale maanaam di topp sa bakkan di caaxaan ba yàlla weer la bokkut yàlla nattu la nattu foo ko fekk day bett borom maanaam yàlla ku maandu la moo tax bu lay nattu nattu ga da lay bett mu ngi mel ni léeg-léeg doomu aadama ji yàlla nattoo ko mu ñàkk mu ñàkk ku xam na ni ñàkk neexut moo tax doomu aadama du ko teg boppam ñàkk ku ne xam ne ni neexul maanaam doomu aadama léeg-léeg yàlla nattoo ko mu daal di nekk koo xam ne ab faqiir lay doon daal di ñàkk wërsëgam néew lool nga xam ne mën naa liggéey ba sonn du am wala sax du am sax ab liggéey te jambar lay doon waye yalla moko ko binde loolu maanaam ko ñak xani mom moom tegu ko boppam loolu nag daa wuuteeg doomu adama ji nga xamni sa borom yalla da ubbi bunti wërsëgam mu am alal alal gani gañ ci ay loxom ba nopi mu yaq alal ja chaaxane ko foye ko ba alal ji xey jeex koka ku ne xam na ni la ko yàlla joxoon moo ko yàq même bu ko yàlla nattoot même bu fekkente ni loola dañ koy tuddee nattoot mook faqiir bële nga xam ne moom amul lum yàq yàllaa ko nattoo ñàkk ñoom ñaar duñ bokk àtte kon mbir yi buñ koy jaawale doomu aadama ji nga xam ne tey góor la lu melni ni la dalon yonent yalla yusuf dembu degna naa benn caaxaankat di ko jéem a ci sen tuuxi duune yi nga xane feñ na bu yagut yonent yalla yusuf lako dalon ci keur kër ba nga xane ne soxna su moko ba ci lo xane yonent yusuf xamu ci dara soxna sa woko ko bëgg ànd ak mom ci ak manam di won ak mbeugelam ci lo xamne ne yalla yusuf yegu ca tinu ca motax bam deme ba xelmati mbir ma dafa jog won gannaaw ndaw sa di daw manam bëgg muccu ca ndaw sa gis nga loolu moy ab nat manam mbir mi da koo dikkee mbetteel nga nekkul ni yonent yalla yusuf mo jëm ca ndaw sa waye ndaw sa jëm ci ci mom xane mbettel lako dikke motax bam deme ba comprendre mbir ye rek da da da di jog automatiquement ngir génn foofa bu ko defee yàlla dal di intervenir jàppale ko parce que xam na ni yonentu yàlla Yuusuf provoqué wul lu ñaaw waaye lu ñaaw moo doxoon jëm si ci moom yàlla daal koy fanqal lu ñaaw loola loolu nag bokkut ak ab saay-saay boo xam ne moom daa ubbi aw yoonu mbonam mu wóor ko ni lii mu jëm ak mbon la ba pare mu sóobu ca ba ay jafe-jafe fekk ko ca mu naan yàllaa ma nattu loolu day ñaari mbir yoo xam dañ koo bëgg a niroole te niroowut kiñ forcé ak ki nga xam ni moo provoqué ñoom ñaar bokkuñu atte ay góor a ngi nii goo xam ne jigéen woona ko nax ko ba dugal ko ci barab barab boobee mu ko dugal am lum ko fa jox loo xam ni lekk lay doon walla naan mu lekk ko nelaw wala mu naan ko nelaw tàggook sagoom ku jigéen ko provoqué ko dal di ànd ak moom ci loo xam ne moom àndu ca sagoom xam nga loolu day am léeg-léeg loolu nag daa wuuteeg ku góor ki nga xam ne moom moom moo yor sagoy boppam fekk jigéen joo xam ne ab jàmbur la ci moom mu jël décision and ak mom ci lu daganut diko nax diko nax diko nax diko ko nax ba and ak mom koké ab say say la loolu dañ ko wara bayyi xel bu baax a baax moo tax nga xamni mi ngi commencé ci gaay nga xamni dañuy woote wo ak wilaya borom xaftan yu rëy yi du ay nat du ay nat ak gu ne ci ñom la buñ demee nag di def seeni njombe ba mbir ma xëy explosé ñuy layam layam kenn ku ci ne naan nattu bi yàlla nattu bi yàlla yooyu du ay nattu de du ay nattu dafa am yoo xam ne yàlla moo lay weer yàlla lu ko naqari mu faj ko wa kadalika nufassilu l ayaati wa li tastabina sabilul mujrimin loolu du ay nattu ab jàjj la bu la yàllay jàjj weer la ngir nga waru delu gannaaw waye du am nat nañ waxante deug te bàyyi caaxaan yi réew mi dafa am lu fi nek lo xamne lolé ku ca tabbi yi ñuy gis ni do ci mucc xam nga dooma adama jo xamne dafa judd fekk ñuy ramal bayam di ramal ay magam mu am fukki at ñu commencé diko ramal xam nga ni li xew ci diggante bawal gi ak kajoor gi ak saalum gi ay jaxaw siin ak ay mbakke kajoor ak ay mbakke xewar ak maanaam dëkk yi boo fi dee dem li nga fiy gis ci ak réer ay gone yu ndaw ñu solal leeni xaftaan teg leen ci kaw baa yu mag ay paa yu am juróom ben fukki at wex tal ak bejjaaw di len ramal lolou kuko xol ci tànt yeeg bass yeeg video yeeg camera yi dang koy gis gone gu ndaw ngay gis sëñ bi mu tok ci kaw ñu tegal ko photo yi kaala ko nga dara ay mak diko ramal ay pa ak ay mer ak doomu adama niko bakkanam jege mu nekk ci lolou nekk ci loolu nekk ci loolu ba xëy am fanweeri at loolu nit ki di ci dund ba xëy am fanweeri at kooku bu ko yàlla dimbaliwul mu am tawfiiqu borom bi tabaaraka wa taala rek day bew day yàqu moo tax jafe-jafe yu bari yi ñuy gis ci diggante borom garambu bu yeeg taalibe yi di am yow goné go xamni jangut am jangam bënul amul xam-xam bu wér momlim mom lim fi nekké moy sangu ba set soli xaftaan boti loxom buy génn ay ponkal wër ko dar ko ay dalam dañ ko koy gadul, saag ba dañ ko koy gadul, nga xane mom du yor dara lu dis bitelu evian mu sax dañ ko koy gadul. buy toog siis ba balaa toog am na ponkal muy ñëw defar ko ba pare nga xam ne moom munoo ni lii mooy métier am munoo lii mooy fooram doo ko fekk mu yéeg ca kaw mimbar ya di ba doo ko fekk ca sàppe kanam ba muy xëccoo liqaam di liqaam mbaa muy nodd borom xaftaan yu rëy yi yëpp amul koo ciy dugg ci jàkk fekk ko muy nodd jombale nañ ko seen bopp maanaam mboolem mboolem mboolem teraangay lislaam yi yi nga xam ne moom la yàlla tagge gaa yu baax yi doo leen ci fekk néew na nga dugg ci kër fekk leen bett leen ci kaamil wala nga fe ñëw ci jàkk ji fekk leen ci sàppi su njëkk sa wala nodd jot ñu jël micro ba nodd wala liqaam wala jiite ca kanam di jàng alquran ju wér ak di waar nit ña jafe na ci loolu ñoom daal fi nga leen di gis mooy ci saal yuñ climaté climaté saal yoo xam dañ koo climatisé ba mu set ay photo yoo xam ne ay salon yoo xam ne ay yére yu cher toog ca kaw ni non mu takk say weer kaalaw gaa yi wër la di la upp bu ko defee nga wax ñaari baat pare ci wala léeg ñu ni kilifa gu mag a mag a mag mooy ñëw ci dëkk bi koo xam ne moom bu ñëwee lim fi bàyyi lum gàtt gàtt dana mat vingt millions mbaa mu jege ko bu ko defee nga génn namm saw làmmiñ wax lu leer mu bàyyi fa alal nga daal jël alal di def ci sa poos wala sa yi bopp koo ci gis muy wax wax ju leer rek ci intere intérêt boppam la ne waaye jëlub kaamil ubbi seetlu leen li ma leen wax boroom xaftaan yu rëy yi jëlub kaamilu alxuraan ubbi ko di taj tajwid di tari ay aaya di ko firi comme ni ko waa alxuraan ak sunna di defe di ko jàngale njàngale mu wér jël téereb fiq téye ko di jàngale ah wala mu jël téereb xadis sahil buxaari wala muslim wala ibn maaja wala tirmizi wala nasa'i wala abu daud diko jàngale ah wala muy jàngale ben téré ci téré loxo yi ah wala téré aqida yi jafe na nga gis ko ci réew mi foo leen fekk ñuy wax rek ña ngay wax ay njaaxum sama mam neena sama baay neena bu ko defee gaa yi daanoo ko yuuxu léeg ñu naan ku ma gis texeek ku ma yaakaar texeek ku ma liggéeyal texeek ku ma ñaqal texe ak ku yaakaar sama maam joxel ci bagaas joxel ci xaalis bi léegi lii su ci doomu aadama ji yaroo nga xam ne moom xëyul gontul sonnul demul fenn di lekk ba suur di naan ba màndi jigéen ñi di ko romb guddeeg bëccëg waaye kooku xam nga ni pour mu tàbbi ci njaaxum day yomb waay dañ waxante dëgg ñun ñëpp ay nit lañ xam na lan mooy doomu aadama doomu aadama dafa am ay natiiri boppam moo tax yenn engagement yi di jéem a ñot loo xam ni taxawut jaru ko fi nan yem ci ak doomu aadama yem ci ak insaaniya jéem a nekki nit te xam ne ay nit lañ yi nga xam ni yàlla dala ko binde mu làmbook yow nga xam ni yii sa natiir la nga jéem a nangu li yàlla def ci yow di jaamu yàlla bu faatu jotee nga faatu mais di jéem a ñoddi yoo xam ni sëñ bi nekkut ci yow te fekk na sëñ bi yaa nga ak ay bagage yoo xam ne du lu naturel da nga koy sàcc di ko def mais jaru ko doomu aadama dafa am yoo xam ne moom la yàlla bindi bindi ci jëmmam ji loolu kenn mucc ci dub yonant dub saxaaba dub shuhadaaw dub saalixuuna awliyaaw yi muccuñ ci ñu baax ñeeg ñu bon ñi ñëpp a ci yem kenn muccu ci loolu nature la mbind la mu yàlla bind ci doomu aadama doomu aadama yàlla da ko bind mu yor ay bët di xool yàlla bind ko muy dégg yàlla bind ko mu yor aw làmmiñ di wax yàlla bind ko bopp bi war a am karaw di ko am yàlla bind ko mu yor ak xar kanam yor ñaari loxo yor ñaari tànk yor ñaari pax ci suuf si yor ñaari pax ci kaw maanaam gémmiñ gi dafay am pax la bakkan yi am pax la mu yor pax ci kanam yor pax ci ginnaaw pax mi ci kanam mu ciy tuur ndox pax mi ci gannaaw mu ciy tuur dugub loolu natiiru doomu aadama la kenn mënu ko bañ doomu aadama yi nag yàlla tabaaraka taala defal leen ñu yor ay yeneeni mbir mbir yooyu mooy lan doomu aadama day feebar di wér doomu aadama day nelaw di yew doomu adama day lekk di naan day xiif doomu aadama day fàtte doomu aadama day toxoñu léeg-léeg sa bët yi dañ ciy toxoñu léeg ay laas na ci nga di ko dindi léeg-léeg soj di ñandu fii yëpp léeg da ngay lan sekkereetu léeg-léeg da ngay jurgóotu wokkatu léeg-léeg nga génn ngelaw ci sa ginnaaw gi yooyu kenn mucc ci sëñ bi kenn mucc ci maanaam loolu ak bind la ak bind la naka noonu doomu aadama yi dañuy bëgg di bañ di xeemeem di sëy loolu kenn mucc ci doomu aadama yàlla moo ko bind noonu bu dee jigéen la yàlla dama bind ci xol bi muy bëgg góor bu dee góor la yàlla daa bind ci xol bi muy bëgg jigéen loolu kaala woog toog ca kaw nekkub surgaak nekkub imaam ak ñëpp a ci bokk yam amul kenn kenn kenn ku mucc ci loolu amul menn mbindeef mu ci mucc yàlla moo bind noonu doomu aadama doomu aadama day bëgg di bañ di xeemeem kon li am solo mooy jéem a yam fi la yàlla yem loo jéem a nangu li yàlla def ci yow nga jéem a nekk nit nite gi ne ci yow nga jéem koo dundal yam nit ñi bañ fee jël ay engagement yoo àttanut loola mooy jàmm ci moo gën di fi jéem a jël ay engagement yoo xam ne dangay ngay kaalaw di jéem a nax nit ñi ci kaw fekk ak wéyu nga ci suuf loolu il faut ñu bàyyi ci xel. doomu ji nga xam ne tey ay nit dañoo ñëw ci yow ni la yow lan yaakaar àdduna ak àllaaxira ñëw jébbulu ci yow nga nangul leen ko danger bu toll noonu ki am fitu def ko bu ëllëgee lun la moo ko def bu ko weddi maanaam ki nga xam ni dafa am fiitu ñëw toog nii doomu aadama ni moom ànd ak ñàkk xamam ñëw jox la ñaari loxoom ni la jébbalu naa ci yow àdduna ak alaaxira nga ne ko nangul naa la ko fit ku ko am su ëllëgee suñ nee moo def nangam ci ay njaaxum bu ko kenn weddi ndax li tax mu nangu lii rek looloo lay war a xamal ni moom àndut ak ragal yàlla maanaam ki xam yàlla dëgg ragal ko du nangu njébbalu moroomu doomu aadamaam parce que xam na ni amul mel ni mbindeef mu am maqaama ñuy jébbalu ci yow moo tax yonent yi alayhimu salaam doo ci gis benn yonent boo xam ne aw nitam doonte kenn nga cay tudd sax doo ko ca mën a tudd ni diw sàngam day mas naa jébbalu ci yonent sàngam amut amul mel ni mbindeef laa wax ba yàlla dalee bind ba nëgëni di yónni doomu aadama yi tàmbalee ko ci maam aadama ba ci yonent bi mujj bi yàlla mujjee yónni alayhimu salaatu wassalaam amul benn yonent boo xam ne nit wa nga dajaloon am na ca kenn ku ñëw ni la jébbal naa la sama bopp àdduna ak allaaxira yonent booba nangul ko ko amut kon jébbalu yàlla tabaaraka wa taala lan koy defal motax ñima gis ñuy jema layal mbir mi nga xane tay feeñ na ci waju sagan lol lol lol lol lol yal na jubal nu jubal ko ñu diko jema layal lele ma deg ñoo xamne dañ nan bu kenn yak sa pas-pas ni ñepp and ak mom ak ñi jébbul won ci mom nañ continuer jébbalu ci mom ak xolal njaaxum yi lan motax ñu nan jébbalu ci doomu adama danger bu rëy bobu lutax ñu bëkk ko bàyyi ci penc bi bala ñoo wax ay waxi njaaloog waxi waajoo xam ne moom da doon woowe boppam borom ak mu jigi mu sàggan ba génne ay bagaasam ci penc meeg yooyu yëpp bala ñu caa yegg danger bi nekk ci jébbalu lan moo tax ñu bëgg koo bàyyi ci penc mi ay nit di ko yar-yaral lan gën a dangereux nga jël sa bopp jébbal ko sa moroomu doomu aadama àdduna ak àllaaxira loolu dañ cee war a taxaw diraase ko mu leer jébbalu ci nit dafa xaraam amul menn mindeef mu ko mën a layal fii ci Sénégal ñi jébbalu ñëpp amul kenn ku ci mën a layal ak njébbalu maanaam ñëw fekk nit mu toog nga ne ko aslamtu nafsi loolu dafa xaram comme niñ koy defee nii ci Sénégal di woy sama wasila jébbal naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi sama yaakaari tey ak ëllëg loolu dafa haram, amul benn mbindeef bu am maqaama ñu yaakaar la tey ak ëllëg ki ñu yaakaar tey ak ëllëg kenn la te du mbindeef muy yàlla tabaaraka taala ki ñuy jébbalu tey ak ëllëg kenn la muy yàlla tabaaraka taala amul menn mbindeef mu am maqaama yi ñu jébbalu ci yow moo tax yonent bi alayhimu salaam ay alayhi salaatu salaam amul benn saxaaba bu mas a jébbalu ci moom maanaam ñëw rek fekk yonent bi mu toog mu ne ko aslamtu nafsi déedéet amut moo tax saxaaba yi buñ daan dugg ci lislaam buñ ñëwee dañuy tudd baatu seede yi bàyyil xel bu baax baatu seede yi lañuy tudd ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu mooy dugal nit ci lislaam bu ko defee nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal la lan mooy tax sa ngëm yàlla wir jàngal la arkaanul islaam ponk yi juróom gannaaw ba nga tuddee baatu seede yi nga nangoo joxe julli juróom nangoo woor weeru koor nangoo joxe azaka ci sa alal nangoo dem mak ndaka noonu yi tamit soo dee jàng arkaanul iman as sitta soo ko jàngee ba mu jeex doo ci fekk yàlla di ca wax naan jébbalu leen ci doomu aadama yi arkaanul imaan dangay ngay gëm yàlla ci boppam an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al axiri wa bil qadari xayrihi wa sharrihi muy juróom benn ponk yoo xam ne mooy wéral ngëm yàlla mooy gëm yàlla njëkk gëm téere yi téere yi wàcce asamaan gëm malaaka yi gëm yonent yi gëm bispenc ba gëm ndogal bu neex ak bu naqari loolu amul fenn fenn fenn fu ci jébbalu ci doomu aadama ñëwee kon jébbalu ci doomu aadama bokkul ci li yàlla jàngale ci sharia moo tax doomu aadama bu mënee toog am fitu mën a nangu njébbalu moroomam nga xam ni waa ji day ñëw jox ko boppam adduna ak àllaaxira te ba mu ko joxee boppam léegi moom dootul seetlu jox gam ko jox boppam lu dul ni lu ko waaj sant mu def ko ndax bu dee xadiya yi nga xam ne moo xew borom jaaxum yooyu nga xam ne doon na publier ay bagaasam ci kanamu jigéen joo xam ne soxna si jàmbur la dégg naa ci ay taalibeem ñu ne dañoo séddalikoo woon ay xaaj ka doon wax nee na moom bokk na ca xaaj ba mu séddalikoo woon mooy da doon joxe dooleem ca biir daara ja maanaam xoolal xoolal riir gu métti gi nga xam ne nit ñi tey moom lañ nekke am ca koo xam ne da doon wax naan moom lu mu musaana liggéey da ko koy indil danaan xañ sax njabootu boppam nga xam ne moom day mujj sax am ay bàkkaar maanaam njaboot gi la yàlla dink sa soxnay bopp say doom yi nga xam ni yaa leen jur nga xam sey mbir yow la ko laaj maanaam seeni mbir ñom yalla yow la dénk seeni mbir ya leen wara yar ya leen wara dundal ya leen wara orienter buñ febaré ya leen wara fat ya leen di leen di leen yar yar bu baax di contrôler seeni mbir mana yow nga ne fa ñukk seeni mbir ak la nga leen wara jox dem diko jox waajo xam señ bi eppoko doole eppoko katan ci lan ci ay pas-pas yo xamne teggul ci sharia teggul ci nité bam jaral la legi nga ni sa njabootu bop googu da nga leni xagn la nga len wara jox dem jox ko waaj yoo da nga ni da nga jebuli ci mom aduna ak alaxira mom muy tabax ay kërëm ak di lek di nan tok japp bopam bo mu xalaat ay xalaat yu fóot daal di lay daal la koy daal la koy naxé parce que ñi nga xam ne tey dañoo yor xaftaan yu rëy yeeg kaala yi ña am seen yitte ji gën a rëy mooy ay xalaat ay xalaat yu kawe parce que xam nañ ni ñii nga xam ni wër nañ leen di jébuli ci ñoom loolu rekk lañ leen mën a naxe mënuñu leen a naxe leneen liñ leen mën a naxe rek mooy ay xalaat yu rëy di leen wax ay wax yoo xam ne duñ ko fekk ci benn téere ay ku ma gis texe jibril ñëwoon na fi démb man yàlla damaa jox jagle goo xam ne soo ma xasee nangul bàkkaar dootu la taq xam nga xeetu wax yu garaaw yii buñ la koy wax léeg ñu jekki-jekki rendi aw nag mu ñëw def ci ay bagaasam ñaan ay ñaanam tifli ca daan ku ma yaakaar lekk ci ku ci lekk fii ba déwén loo fi def ci bàkkaar yàlla du la ko bindal wala sama tool bi ku ci xëy saw ñaq bu daanoo ca tool ba saw yàpp yaram araam na sawara léeg ñu xëy mu ne diw sàngam fee ñu ne ma biig daal di génne benn mbir benn affaire bu raar boo xam ne lu muy programme lay doon daal ni lii diw sàngam fee biig jox ma ko nee na ku ma nee ku ko xool texe léeg-léeg nga jékki-jékki ñu génne ubbi ak gaal goo xam ne bañ ko tëjee yàgg na lool génne ci am mbubb daal di koy sol daal di lii mbubum diw sàngam ma la ku ko gis texe wala ku ko raay texe maanaam yooyu ci la tënk nit ñi di leen ci nax léeg ñu woote ay xew-xew yu mag a mag a mag a mag rendi ay nag ki ay gàtt togg ambiance bi jàng-jàng yi si kerseeg nax nit ñi loolu ci la tënk nit ñi bañ xëy màggat te duñ xam ni ñu ngi leen di nax lislaam nag dafa soreeg loolu lislaam du loolu moo tax yàlla dañu woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa ayyuha rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam tafaal fa ma ballagta risalata yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam jottali li ma wàcce ci yow soo ko deful xamal ni jottali woo li mu wàcce ci moom lan la mooy alquran ak sunna moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa jàngale ba xëy faatu même bis bi mu faatoo sax dafa jàngale bis bi mu faatoo bis bi mu faatoo dem na ca jàkka ja julli fa fajar jiite nit ñi loolu rek jàngale la kaddu yi mujjee wax jàngale la assolaa assolaa wa ma malakat aymaanu sax leen ci julli sax leen ci julli ak njaboot gi ne ci seen ndeyjoor yi dénk dénkaane julli dénkaane njaboot gi waaye tey da ngay gis waajoo xam ni moom day taxaw tudde boppam kilifa diine tudde boppam borom yi wilaaya di nax nit ñi te doo ko dégg mu wax ba tuddub aaya du tuddub xadiis bu waxee ba yeggal li wax lépp di ay njombe ay bokkaale ki biddaa kooka buñ toogee ba yàgg sëñ bi mu tekki tubéyam am lu mu jay wane loola wërte jaaxal kenn nañ bàyyi mbir yi ñuy jéem niroo la te niroo te niroowut ak caay-caay akuk natt mënuñoo bokk njaaloo dafa xaraam yàlla tuddewul njaaloo natt moo tax yàlla dañuy wala taqrabu zina innahu faaxishatan la yàlla wax njaa maanaam bu leen bu leen jege njaalo ndax njaalo dafa xaraa dafa ñaaw kaana faaxishatan wa maqtan wa saa sabila njaalo lu ñaaw la lu ñaaw la lu bon la te yoon wu gudd la yor nag ci ak ñaaw njaalo lu bon la moo tax même doomu aadama sax bu fekkente ne doomu aadama ju góor ji sax bu fekkente ni dafa ànd jigéen ju ko daganul ba doom juddu ca sax doom joojal lislaam du ko askanele baay bi même bu baay ba faatoo sax doom ja du ko mën a donn mais loolu lu ko gën a garaaw kon dafa am ay mbir yoo xam ne il faut ñu delloosi ci suñuy xel doomu aadama attanul moroomu doomu aadamaam ci wàllu pas-pas doomu aadama lim war a fas ci ab xolom mooy yàlla kenn la yàlla rekk lañu war a jaamu moom mooy ki ñu war a gëm war a torox lu jëm ci moom moom moom mooy ki ñu war mbir yi moo tax yàlla ni watawakkal alal hayyi alladi laa yamut booy wàkkirlu na nga wàkkirlu ci kii dund te du dee kooku mooy yàlla waaye jël say mbir wékku ko sa moroomuk jaam naan ko yaay sama yaakaari tey ak ëllëg ak munu ma laa ñàkk ak sunul woon ak yow du ma am ak lu ma am yaa tax ak boo ko jubee di raam buy wax ngay daanoo ko bërëngoo ko jooy ak di dof doflu nañ bàyyi caaxaan yite te jaamu ji yàlla nañ bàyyi caaxaan yi te wéetali yàlla lislaam du ay caaxaan lislaam ay caaxaan bu fekkonte ni képp ku baax rek ku taq ci yow dem àjjana yonent bi alayhi salaatu salaam ay mbokkam ñu ci baree bari am na ca ñoo xam ne sawara lañ dem abu jahlin mbokkum yonent bi la di bàyyi ci moom abu lahab mbokkum yonent bi la di bàyyi ci moom ummu jamil mbokkum yonent bi la abu taalib mbokkum yonent bi la di bàyyi ci moom anañu ña nga sawara bu fekkoonte ni bu fekkoonte ni yow boo baaxee rek ku nekk sa deret rek dem àjjana kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam menn mbokkam du dem sawara nañu waxante dëgg nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi caaxaan yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy moo moo gën ci nit ñi ak ginne yi moo gën ci nit ak ginne laa la wax mooy ilimaani jaam ñi yowmal qiyaam mooy jiitu ca kanam te am na ay bàyyi tëx yoo xam ne sawara lañ jëm yonent yàlla Ibrahim ku ne xam na ah, ku ne xam na ko mooy bàyyi yonent yi ci tawxiid xalilur rahman xaritu yàlla la yàllaa ko tànn def ko xarit wattaxada allahu Ibrahima xalila ànd ak loolu lépp bàyyam sawara la jëm yonent yàlla Ibrahim lu gën a metti lool yonent yàlla noox ku ne xam na ni mooy bàyyi yonent yi moom la yàlla njëkk a yónni ci yonent. ci ci ci ci ci am nit nit woo xam ne mu leen di woo jëme ci tawxiid gannaaw aadama mu moom tey soxnaam sawara la ak doomam loolu lu ko gën a metti bu fekkonte ni ku baax rek say mbokk dem àjjana kon yonent yi seeni mbokk duñ dem sawara kon Sénégal nañ delloo si xel yi te bàyyi caaxaan yi bàyyi naxaate gi bëgg a jël diine ji bëgg koo def ci wàllu askan diw sàngam kum jur rek nit ku baax nga ku judd ca mbooloo moomu ñu def lépp sëriñ aj la ca kaw ngay di di la raamal bu ko defee ngay defi njombe rek di teg caaxaan baaxul yàlla nañu yàlla tabaraka wa taala musal ci ak réer nasalu allaha tabaraka wa taala alhidaayata walmaxfira wallahu aalam